bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi sallam mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kii di arrubay bint muawiz radiallahu anha soosu nga xam ne saxaaba la radiallahu nettali ni nga xamee ne noonu la saxaaba yi doon jàngale seen doom yi koor euh, xaalid ibnu zakwan radiallahu anhu moom moo ko maanaam li aju si wallu woor tam xarit bisu tam xarit mu ne ñun de daawoon nañ ko woor euh, ndax moom sang moom moo ñu ko sant mu ne ñun daañu daawoon nañ ko woor wanu sawwi mu sibyaana na waaye itam ñu doo woorloo suñu doom yi te daa nekk ñoo xam ne ay xale lañu miiruñu koor gi mais dañ leen doo woorloo ngir jàngal leen ngir tette leen ngir tàmmale li nga xam ne mooy jaam yàlla waaye itam mu ne wa nasnau lahum a loo loo allubati min al ihn maanaam ñu defaral leen benn fookaay yoo xam ne dañ kaa jëlee ci leen loo xam ne dool dafa nooy népp benn fookaay nga xam ne xale bi euh, du yittewoo lekk du yittewoo naan mais dafa yittewoo fookaay bi nga xam ne moom la yor après ñu jël leen yóbbu leen si jàkka ji nekk ak ñoom suñu demee ba tàmbalee euh, jooy rek ñu jox leen fookaay bi ba keroog waxtu euh, dog jot loolu noonu lañ doon tàggatee seen doom yi si lii nga xam ne moom mooy koor kon loolu jàngal la ne maanaam sa doom danga kaa war a tàggat si koor mu xam kooru farata la wala kooru naafila loolu lu am solo la te jara yittoo bu baax a baax a baax te jara bàyyi xel te jara fonk saxaaba yi dem bu dañ doon tàggat seen doom yi si ay jëf yu baax nga xam ne wala ñuy màgg day fekk ne jëf yu baax yi dafa bokk si li nga xam ne mën nañ ko miin nañ ko tàmm nañ ko di leen sonal ndaxte tey jii bari na ay mag ñoo xam ne lu bari si jaam yàlla mënuñ ko def la moo tax ndaxte jàngaluñ ko leen ko woon buñ nekkee ay xal kon loolu nekk loo xam ne jara bàyyi xel jara yi yittewoo kon fonkal jaamu yàlla waaye itam fonkal jàngal sa sa doom euh, jaamu yàlla yi loolu am solo la bi ma wax nii léegi moo ngi ci buxaar yi ak muslim barakallahu fiikum ahsanallahu aleykum asalaamaaleykum